waaw salaamaaleykum mbokk patriote ah xam naa ni justement yi jégalu na ci bruit de fond bi ah ngeen baal ma rek mais dafa am information boo xamante ni dafa ma fi daf léegi euh, ma partagé ko ak yéen mu yaatu pour ñëpp jot ci balaa balaa balaa guddi sori kenn ku ci nekk xam ngeen suñu frère bii nii xam ngeen ko. waaw salaamaaleykum mbokk patriote ah xam naa ni justement yi jégalu na ci bruit de fond bi ah ngeen baal ma rek mais dafa am information boo xamante ni dafa ma fi daf léegi. te te te faaw ma partagé ko ak yéen mu yaatu pour ñëpp jot ci balaa balaa balaa guddi gee sori kenn ku ci nekk xam ngeen suñu frère bii nii xam ngeen ko kii mooy Fall Paradise gaynde la ci combat bi te man xam naa ci dara su ma nee gaynde la ci combat bi rek xam naa ci dara dañ ma wax sànq ni ma dañ ko arrêté ñan ñoo ko arrêté polisu jàmm gën ñoom ñoo ko arrêté sànq. raison yi tax ñu arrêté ko nag man xamaguma ko mais maa ngi koy gëstu ba xam lan moo tax ñu arrêté ko lu ma ci xam dinaa ko partagé waat ak yéen fii nii mais daal ak lu mën di xam ba war koo jox joxe jox ko police ak gendarmerie mooy seen hiérarchie bi dañoo war a xam ne ñoom nekkal luñ fi Macky Sall askanu Sénégal lañ fi lañ fi war a nekkal askanu Sénégal lañ fi war a nekkal mais bu ñu fi nekkal un parti politique nañu fi nekkal la patrie la république sénégalaise nañu fi nekk pour la sécurité des citoyens et de leurs biens te bañ a nekk ay ñoo xamante ni da ngay nekk di livrer ay commande commande kan ay commande partie politique il faut que lii mu arrêté nag il faut que lii mu arrêté